mbooleem mbooleem saari alquran saar bu ne mën na remplacer moroomu saaram ba mu des fatiha fatiha daal bu ma la doon expliquer bu ma la doon expliquer dama la naan góol la rek ci bu football équipe mom ku ne mën naa toog bu amul match bay arrêté kon fatih lan la la bëgg wax moy julli man na ñak ab sar ñu réparer ko julli man na ñak sar am aya menanya na ñak aya am sar man nga julli ba paré do jang ben sar té tayo ko rek tayo ko jàngoo benn saar xoolal boo sëlmalee ñaari sujjot ngay def rek mu remplacer sa sar ya mais fatiha ken mënu ci lolu ndax dooleem fatiha njëriñam mo waral mu bari tour tuduna shifa تدنا وافية تدنا واقية تدنا كافية تدنا أم الكتاب تدنا أم المثاني تدنا فاتحة الكتاب تدنا سورة الحمد لله بوكو توبي لي مو امتي اي تور دو جيخ تي داري لولا غنا باري اي تور ريك داي واني لولا جامبار لا ولا لولا لو تيد لا لي ليپ يالا فاتحة مويلا لان ها بوكو تي مي فاتحة شريف سا بوكو دي جانغ يالا داي واخا يا بوني الحمد لله رب العالمين سوني بروم دانان حمدني ربي غني الرحمن الرحيم ات بروم بي دانان الحمد لله رب العالمين من حمدني عبدي غني الرحمن الرحيم من سنا علي غني ملك يوم الدين من مجدني عبدي غني اياك نعبد واياك نستعين من هذا بيني وبين عبدي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 boo koy jàng bu ci bokkee bu ci bokkul jàngaaleel bismillahi rahmaani rahim ndax lan yonent yàlla muhammad salaay salaam nee na bépp mbir mu am barke moo xam ne bañ koy tàmbali tàmbalee wuñu ko bismillahi rahmaani rahim yonent bi nee na dañuy dagg barke ba lu mu doon moo tax nabi salaay salaam bu daan toog day wax bismillah buy jóg ni bismillah buy lekk ni bismillah sallallahu alayhi wa sallam même bu dee julli werante bi kay mu ngi ci moom bu daan jàng fatiha ndax bismillahi rahmaani rahim bi ci kaw la koy wax wala ci suuf waaye da ko daan wax moom ci suuf la ñenn ñi wax ñenn ñi ni ci kaw daaw ko biral mais wax ji moom da daan am moom kon fatiha lan moo waral ñu tudde ko shaafi shifa mooy day saafara lu waral ñu tudde ko waaqiya mooy jat la day mocc saxaaba yi dañu génn dem doxi mission bi ñu doxee mission romb benn jigéen mu ne leen suñu dëkk bi day dafa am ndaw su fi daanu ay jéll bi mu daanoo ay jéll nag ñu bëggu ko ko mocc ah benn saxaaba ni mën naa koo mocc nañ dem ma moccal leen ko ñu wàññeeku dem saxaaba bi daal di mocc bi mu moccee ba pare boroom rab ya ay way juram fayee leen ah weexale leen fanweeri gàtt fanweeri gàtt ñoom ñu séddoo gàtt mooy xar wala mooy xar xar ak bëy mooy gàtt mm. mu mu mu weexale leen salaasiina xanam mooy fanweeri gat bi mu leen ko weexalee ñu ñibbisi ñii ni dañuy lekk ñii ni duñu lekk ñu ni lan ñii ni dafa araam waruñoo jël weexal ñiini ni aha kay ñu ni nu ñuy def ñu ni nañ dem ci bi bala ñu koo laal ñu laaj ko ñu ñëw ci bi salaay salaam laaj ko ni ko kii day dafa am ku doon daanu ay rab mu mocc ko bi mu ko moccee mu ñëw wér ñu weexale ko fanweeri gàtt ñun nag nee nañ duñu ko laal ndax daa aram ñu ni araam yonent bi salaay salaam ni baa séddoogu leen sédd leen ma loolu lu muy firi waaw waaw duñ ko kon mooy wane ni nga def te yàlla tax ñu jox la te yàlla tax nga jël ko araamul big aram kay mooy dóor marto bi mhm. ni ko gars di waxe yonent bi sa kon ci loolu lañu ko tuddee waaqiya mooy lan li mocc day mocc mhm. am saxaaba yu génn dem ñu romb benn dëkk am ku ñu yuuxoo ñu ne lu xew lu xew ñu ni jaana ko matt bi ñu nee jaana ko matt ñu ne am na ku ko mën a mocc fii de ñu ni ko kaay mu ñëw mocc pare ñibbisi yonent bi salaay salaam borom mocc bi loo mocce mu ne suuratul fatiha yonent bi ni ko lan moo la xamal ni mocc la ca la ko tuddee waaqiya ni ko saar wii mocc la kële jaam jat borom jaan ji luggu jaan ji ba ji wàcc yonent bi salaay salaam ni ko loo loo ko loo ko jate mu ni ko suratul fatiha yonent bi ni ko kii shifaa la li kulli daa in lépp lu mënti doon da koy saafara ci jàngoro yi léegi nag ñu ñëw fatihatul kitab julli gooy julli te amul fatihatul kitab suñu borom subhanahu wa taala du nangu julli ga fatihatul kitab saar la woo xam ni ñaari yoon la wàcc pour wax la dooleem. Mhm. eh boo gisee mag mi lu ñu def rek bàyyi ca. mag ñi bu ñuy ñaan na ñu jàng faatiha ak nangam ak nangam nga jànge fële yaa xam foo mën a jànge ñëw ci réew mi daat ni loolu bidaa la nangam nangam la mag ñi am na fu ñu ko teg de faatihatul kitaab ñaari yoon la waaj ñii dañu ni makkiyatun la ñi ni déedéet madaniyatun la ñu ni aha kay makkiyatun wa madaniyatun faatiha daa wàcc màkka wàcc medinatu munawwara wàcc na màkka ba fa yonent bi nekkee bi yonent bi gàddaayee di medinatu munawwara yàlla wàcce waat ko allahu akbar kooku saar bu ndaw la déedéet jibril dafa toog ba mu yàgg dégg benn bruit bi mu déggee bruit bi daal di teen moom jibril xool asamaani juróom-ñaar mu gis ni am na benn bunt bu ñu tijji boo xam ni masula tijjeeku mu gis benn groupe bu malaaka di fa wàcc mu ni waaw lu xew ba yàgg mu ni ah ñaari leer ñooy wàcc jëm ci sang bi sayyiduna muhammad salaay salaam ndekete te moom la ñu jëm si ak ñaari leer yi moom jibril ngir mu dem ci rasulillahi ñaari leer yi ñu ne ko jibril ñaari leer yi lan la mu ne suratul fatiha ak jeexitu baqara jeexitu baqara fa tabaarakallahu ma maa ngi ñaan sax sëriñ bala ma lay jox kàddu gi maa ngi ñaan xale yi kenn kenn ci yéen jàngal ma jeexitu baqara amana rasulu ma doog a joxaat sërif kàddu gi. bismillah na kenn jàng. na ma kenn jàngal euh, amana rasul ma jox sërif kàddu gi.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 ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل عظيم lii Jibril ni ñaari leer ñoo wàcc moo tax ñu tëjji buntu bu ñu masul a tëjji ñu jaar fa ñu ni Jibril ñaari leer yi yàlla mu ni suuratul fatihatu bi ak jeexitu suuratul baqara mooy lii xale bi jàng léegi Chérif da bëgg ma ñëw ci firi suuratul fatiha kon xam nga dama la ni jaam bi buy jàng fatiha bu ne alhamdulillahi rabbil alamin yàlla danaan sama jaam sant na jaam bi ni arrahmaani rahim yàlla ni sama jaam bi kañ na ma jaam bi ni maliki yawmi diin yàlla ni sama jaam bi teddal na ma jaam bi ni iyaaka naabudu wa iyaaka nastain yàlla ni lii sama digganteeg sama jaam bi la jaam bi ni ihdina siraata almustaqim siraata alladina anamta alayhim gayri almaxdubi alayhim wala ddallin muy ñaan gi yàlla ni jaam bi may naa la li nga ñaan واو سليمان جلل مفاتيح بين آية بر بين آية مفير الكوسة بابو الشريف محمد الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دينغ موي يا الله سني بروب سبحانه وتعالى بي مو نيوي نينا لا فاتحه بارك بيب ييب موغي سي بسمله بارك القران موغي سوره الفاتحه ويا بارك سوره الفاتحه موغي بسم الله الرحمن الرحيم ويا بارك بسم الله الرحمن الرحيم موغي baawu basmala bi yàlla subhaanahu wa taala bi ñu jëlee bopp saar bi di bismillahi rahmaani rahim moo xam ci la bokku baa bokk ci comme moom la ñu déparé da nga naan bismillahi imaam maa ngi tàmbalee samay wax ak samay jëf ci turu yàlla ah arrahmaani yàlla moomu mooy xéewal bépp def ci àdduna waaye arrahimi yàlla moomu mooy yërëm ku ko soob àllaaxira lu waay di am ci àdduna moo xam kàccoor la baaku baax suñu borom subhanahu wa taala mo la koy defal buy def du xamé ku am ak ki amul du xam ki mën ak ki meunul du xam ki ka top ak ki ka topul xéewalu rahman ñëpp la koy boré waye buñu démé ba rahim nak mom day tan ñam koy defal lo tek alhamdulillahi rabbil alamin deng suñu borom subhanahu wa taala ni alhamdu mbolim xaju cant yépp لله ñeel na yàlla rabbil alamina kii borom mi def gis nga cant yi imam Pape Samba mboolem cant jaam bu sant moroomu jaamam yàlla la jaam bu sant yàlla yàlla la yàlla mu sant jaamam yàlla la yàlla mu sant boppam yàlla la mbooleem xeeji cant yi ñeent yi ñeent lépp day dellu ci yàlla imam Pape Samba xamoo ne lu mu doon lu ne am na ku cay jooy mais am na ku cay sant baal ma rek maara day taali oto bi dafa génn bi muy daw mbëkk benn xale maara day taali xale ba dee waa kër ñoom xale ba du day yuuxu mhm. mais bu ñu dee yuuxu yàlla dogal na gis ne biñu jëlé jëlee néew bi wo ambulancier bi mom amna dépense suba te naru ko wona fanano lan moko ko jural moy xale bi dé boko topé ba xale bi dem ci armée ya ñu koy suul même sax ya ne ci fofa amna ñu réru tay te ñu goña am lan moko waral xale bi dé boko topé moy mooy rabbil alamin lu mu doon lu ne amna ko tay sante sant waaye cant yooyu yëpp day wat ci yàlla subhanahu wa taala arrahmani rahim mu tuwat الرحمن الرحيم gis الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلام صدق الله العظيم كون نانيو ديلو سي وات سليمان غيسغا الرحمن الرحيم الرحمن بارك لا سخلا وون موي سونو بوروم سبحانه وتعالى موي خيوال بيب مينديف ادنا واي الرحيم موي يرم كوكو سوب الاخره موم يالا مالك يوم الدين باتاي سار با نفيري مالك يوم الدين دانيو ني مالك يوم الدين موي حفص ني ني ديديت مالك يوم الدين mooy waras waaye ñaari jàngin yi bu ci gën demal suruhul bayaan tafsirul quran boobu dafa am benn nitu yàlla day jàng warsa di wax maliki yawmi diin bi muy jàng maliki mi diini am benn nitu yàlla bu ko seet si mu jiite ko julli naan maliki mi diin kooku ni ko yow lu war a ngay jàng maliki yawmi diini mu ni ko maliki moo gën a matale mu ni ko déedéet maliki mu ko lu tax mu ni ko boo nee maaliki ñaari araf la te boo nee maliki benn araf la maa gi boo ko xëccee ñaari araf la boo ko xëccul benn araf la mu daan ni ah wax nga dëgg de kon naay jàng maaliki tàmbali di jàng maaliki tëdd nee na bi mu tëddee guddi yonent yàlla Muhammad salaay salaam feeñu ko ni ko yow lu waral nga bàyyi maliki di jàng mu ni ko bëgg tiyaaba yu gën a bari yonent bi salaay salaam ni ko ci biir gént gi maliki day moo gën a jotale maaliki ndax dañu ni maaliki dafay am lu mu moom am lu mu moomul waaye bu dee maliki mooy ci moom lépp nak moy malik yow mi diini bi nga xamni ni nguuram amul fumu doore bay am fumu yem bour bobu di bouru bisu payba moy yawmal qiyam koku moy kooku mooy yàlla loo teg iyaaka naabudu wa iyaaka nastain nga ni yaa rabbi alhamdulilahi rabbil alamin mu ne man la arrahmani rahim mu ni man ngay waxal ba tey maliki yow mi diin mu ni man ngay waxal xam naa nga ni ko iyaaka naabudu yow dong laay jaamu mu ni deful xam <laughs> day de xoolal yàlla rek subhanahu wa taala ngay joxañ sërif ni ko iyyaka na'budu mun la boo ko deful xam nga ni ko wa iyyaka nasta'in ku dul yàlla boo ko ne iyyaka na'budu mun la wa iyyaka nasta'in ba ci baal leen ma rek baal leen ma sëriñ boo fi ni yow rek laa yaakaar mu ni la tool yi wala mun la sama terrain bi politicien boo fi ni yow rek laa yaakaar mu ni laa ah, wutal ma benn mouvement يلا ركنا نان إياك نعبد يو كيب لورا نجيت الإياك موي يفيد الحصر موي إياك يو كيب دونغ رك رك رك رك رك رك رك نعبد لجي جام وإياك يو كيب دونغ رك أمو الكنان نستعينو نمبل تي يو دونغ لنكوي وط يو يلا أه. اهدنا الصراط المستقيم لجنك مني لوا لجنك لو بجنك نيخل ببارنا لو بج نانيكو اهدنا الصراط المستقيم يلا نجو نجوبل تي سيون وجوب يخوت يو يلا مني لا واو يون واو ناخ خمغا كو غاري كو واو خمناكو صراط الذين انعمت عليهم يون ودال موي يونو غا نيغا خمي انعمت عليهم يا لين خيولل من النبيين تا يونتيا والصديقين اك ني دغ ني نيك نيوم بابكر صديق والشهداء اك ني ديتا خره نيك نيوم حمزه والصالحين اك ني باخنا نيك نيوم عبد القادر جيلاني شيخنا التيجاني شيخ احمد بامبا سيدنا الامام سيدنا عيسى مام لاج ابلاي نياس مام خليفه والصالحين مام لاج احمد برون جوجن والصالحين مولم كايو باخ يوي دال نيو لاي واخ يو يالله غير المغضوب عليهم ولا الضالين mu ni la ban yoon nga bañ comme yaa gi ñaan bii nga xam ni fa la gaay jaar ban nga bañ mu ni nga ni ko bi ma bañ daal mooy bi nga xamante ni ña nga mere boobu moom bëgguma ko ñooñu dañu ni mooy yahuud ya xam nga lu tax يهود يوني وقالت اليهود عزير بن الله نيوني موم بغوما سين يون مونيلا اك بان غاني كو ولا الضالين نيغا سانك دي نصارى لي بغوما سين لوتاخ وقالت النصارى المسيح بن الله ني دانيو وتال يالا دوم ني وتال يالا دوم غا ميري ني سانك ني ياو يالا يونو نيوني لا بن شريف مامي كادو غاغي نونو كون نك خالي عثمان فاتحه الكتاب غي نونو